ayca salaamaaleykum mbokk internet yi ñu ngi leen di siyaar bu baax a baax comme ça su nekk nu ma koy defee seen émission waa mbedd mi damay daal dugg ci mbedd mi xool gars yi naka lañu ñu toogee naka la ñu waxtaanee ah waa mbedd mi nii lay demee lépp loo xam ne actualité la dañu koy waxtaanee waaye dañuy masawu senegal yëpp ci accident bi nga xam ne am na fi ah, du ñu ne benn la du ñu ne ñaar la di masawu ñëpp di ñaan yàlla ñu ci loru yàlla oyofal suuf seen kaw ñi nga xam ne yàlla ah, bana leen fii ñu am ay gaañu gaañu yàlla wéral leen di gërëm ñëpp jaar fi rek ay boo fi jaaree ay boo fi jaaree Sénégal ka li nga xam droit de image kii bu jaaroon fii nii ba ma laaj ko droit de image lu muy wax mu ngi doon seen émission waa mbedd mi dama jëm xool kenn daal di ko jël ci Dóor waar après ñu def comédie waxtaan kaf ak ree topp ma xool. boo ma mbëkkee soo mbëkkee loo may fa ah soo mbëkkee loo may defal. non du wala mbëkk. mbëkk ma set sañu loo ko sax. xam nga dugg fii xool jaagaru dàll yi naka la ñuy defee noonu salaam ko fay siyaar naa la siyaar naa la mën na wàcc fii ab ah, mais ma wàcc fii sëñ bi siyaar naa la. delloo siyaar gaayen. mën nañu xam tur beeg sant bi. man Abdou Faye laa tudd sant Faye. Abdou mën nañu xam foo jugee ban dëkk nga jugee Dakar nga dëkk wala. man dëkkuma Dakar vraiment. man bambay la de quoi. la motax nga jógee bambay ñëw Dakar. jóge li tax ma jóge bambay ñëw Dakar tok bo tollu ci yene anzi gisuma luma def fofu ñëw fi euh, teel a bàyyi tamit parce que problème galé ñoma ñoo jamono ma juddu nek ndaw fek sam papa nek mag Yen yu bari ma gis ko ci kër gi mu manki munul dem quoi ma quitté ligai ñëw fi liggéey pour luma fa yobbu quoi instant bi da nga yor ay njaboot ay xale tu tànk nga baleen foofu wala da nga ànd ak ñoom fii. non instant yi samay doom ñu ngi foofu ak sama soxna ak sama yaay mais pa bi moom mujj na noppaleeku quoi ma ñëw fii di góor góorgóorlu du wér loo xamante ne pour ma dem yóbbu foofu lu ma kiyee samay njaboot quoi. mën nañu xam ban liggéey ci nga yëngu. man vraiment ci jaay dal laay yëngu dem Colobane jënd dawal ñëw raxas ñëw teg lu ma si am rek mën a yóbbante dëkk ba. léegi ma mën nañu xam jaay dàll bi nu mu demee boo demee kolobaan da ngay ni kolo kolo dàll yi xëccoo lay doon am da ngay ñëw peese ko am per benn dàll ngay jënd ak détail yi ni muy demee. no dañuy kolo kolo rek parce que da ngay ñëw tey da ngay teg gis benn daal ñëw di ko fay ay 5000 7000 booy teg kee fay 8000 nangam sangam mais da ngay boole lu mot 5 per 6 ñëw waxaale. après ñu jaay la globalement bi nga ñëw indi mais li ngay yor noonu booy teg am na keneen ku ko soxla quoi booy teg rek keneen day ñëw fayaat prix comme noonu daanaka jënd xeccoo lay doon quoi. indi waa gis nga ku nekk di loo am kenn mayul sa morom dara comme ñun sañuñu yarewuñu ci sàcc yarewuñu ci agression moom nu ñu def bu am xaalis rek te mu nekk ci lu jub ñun ci la ñu nekk quoi ñun ay bawol bawol lañ. parfois doo jënd foofu daal ba pare daal ko teg sa côté wala nga jël daal yi nga bëgg teg ko sa côté ñu randal ko mos nga dund yooyu foofu. non loolu moom vraiment mosul am foofu ko xanaa kay ngeen di xeecoo boo kii bëgg luy kii bëgg mais pour boo xesee ba jënd say daal nii no loolu amul problème boobu foofu moom amul problème boobu vraiment. am na am na tamit ñuy faral di wax naan da ngeen di jënd benn dàll dàll bi changer couleur bi wala wala ngeen jënd dàll bi fekk ci benn bën bën fataat ko wala ngeen jël daakaani daf ko nit ki bu ko jëndee fóot ko loolu est-ce que ci ñëwal non ay fàtt daal moom mun nga jënd daal boo xamante ne dafa tepeeku mais am na ñoo xamante ne dañu toog foofu spécial ñoo xamante ne dañuy ñaw daal ñii di kole mais boo ci gisee loo xamante ne lii mënoo ko defar da ngay dem feyaat ñu kole la ko bu fekkee ñaw ñu ñawal la ko ba mu des foot nga ñëw foot doog a teg exposé quoi di jaay. est-ce que jaay dàll bi dox na yaa ngi siy gis sa bopp nu mu war. non parfois yenn saa nga toog trois jours doo jaay de mais yenn saa yi tamit affaire yi mooy loolu waaw affaire yenn saa yi nga jaay balaa ngoon nga am sa weccet aja deux jours trois nga daw doliwaat yeneen bagage ñëw tegaat waaw yenn saa yi tamit li nga jëndee nii cinq mille cinq mille bu bëggee yàgg nga daw genaat comme li nga ko jënde woon boo ko gisaatee rek dóor dëkk bi moom toog moo fi amul quoi léegi fii rek ngay laal wala da def comme yeneen ñi marché dimanche marché lundi ah non moom actuellement fii rek laay lal quoi fii rek laay lal aw moom feneen fu mooy lal quoi waaw fii rek laay laal bu ma jaayee ci journée bi baaxul bu ma jaayul tamit ma xaaraat suba rek waaw. est-ce que est-ce que tamit euh, bi bu ñu gisee yenn daal yi nga xam ne instant bi nawet fekk na ko fi yàlla ji taw ci yenn yàqu du leen indil parfois yenn gàllankoor yoo xam ne da ngay sa mujjee yenn daal yi wala après nooy def daal yi koy jël yóbbu ko sa kër wala ba daal yooyu noonu da koy jël delloo ko indiwaat yeneen non actuellement day am yoo xamante ne taw bi dañu fiy fekk balaa ngay laali fekk yeneen yi tooy na day souvent boo xoolee fii ci biir dal yi nga gis dal yoo xamante ne yàqu na mais yow da ngay bàyyi noonu yenn saa yi nga gis koo xamante ne ferrailleur lay def wala ñii di euh, maçon wala dara nga jaay ko bu demee ba mu yàgg bu fekkee jaru tamit nga boole yooyu yëpp yóbbu si mbalit bi sani xool li nga xamante ne mën naa jaar rek nga tegaat. am nga ku la jàppale wala amoo ku la jàppale. non man actuellement instant man kese la quoi. est-ce que soxla nga kula jappalé ak bo gisoon kula jappalé ñaata nga yaakaar su lako joxé ci som yow di nga mëna ubi sa place bu luxe wala di nga mëna dem ak sa propre moyen. man instant yi man mom soxla na ku soxla na ku ma jappalé quoi mais wax dëgg amuma ko yenn saa nga dolu ben difficulté bo xamante ne yow do mëna wax parce que bo waxé tamit souvent dañuy xam li nga bëgg ba paré to do am mais day mati nga koy muñ mais instant yi moom su ma ku ma dimbalé tay tay kon duma tok fi ci bi instant yi jaayam dal bi maa ngi ciy def quinze ans yu tegu dara changé wul ba léegi nii mais dara amoo leneen looy def ñu ñuy def dañuy toog rek di xaar mooy loolu. kon suñu déggee réew mi nekk na instant bi benn góom boo xam ne alcool lay xaar lu ci waay teg rek day saf est-ce que alcool boobu noonu jàppale na nguur gi moo ñu ko teg wala ñun jeunes yi ñoo ko teg suñu bopp. ñun souvent damay gis ni tamit ñun jeunes yi dañu am ci part de responsable parce que tey boo xool boo gisee ne nguur gi daf maa war a jàppale. boo tax nga bàyyeeku jéemoo dara tamit loolu beneen affaire la yow da nga ciy nekk ku la ci fekk fekk la ci comme nii kenn mun na ma ci fekk tey gis ma mu ngi may rom fii boobu ba léegi ñëw jàppale ma ne ma am li defal lii man tey xam naa yoon bi boo xamante ne tey tey tey tey ku ma joxoon euh, deux million cinq cent wala trois million ne ma tukkil toog fii moo ma ko gënal parce que man xam naa lan laa war a liggéey fii ma nekk nii si biir dëkk bi xam naa lan laa war a def waaw te bu ma ko defee dama ciy génn y a actualité bi nga xam ne ñu ngi koy ko ci àdduna wërgal këpp même ci internet bi mi accident bi nga xam ne am euh, euh, ñu ci bëri jaasi ci ñàkk seen bakkan ay doomu sénégalais ñu gis yenn dogal yi nga jël nañ ko ci ñun ñu nekk Dakar tey gis nañu tali yàq yi ni mel ci région même bi euh, ak ñenn ci apprenti manque de respect bi ñuy respect ñi nga xam ñoo di clients yi est-ce que mos nga dund yooyu ak tey ban message nga de lancer askan non avant tout moom euh, accident bi ma gis nii daw na yaram quoi métti na trop métti na trop man de yoruma sax téléphone bu ma mais yenn saa yi ma gis gars yi di ko dem du ma ko sax mën a xool parce que dafa métti dafa métti en tout cas chauffeur yi tamit war nañu mun a def ndànk war nañu mun a def ndànk parce que dafa am yenni dawal yooyu dawal tey comme problème bi xew nii tey booy dawal yenn dawal yi tey boobu lu toll ni biis yu toll noonu ak ñi ñu chargé bopp benn panneau bi si kanam amee problème rek yow moom oto bi pour nga sauver ko pour sauver nit du mën a nekk foog mu nga am doomu aadama yoo lor yoo lor messange ñi nga xamante ne ñooy def affaire transport tamit. Eh, eh, eh, maa lay ziar di génn heure bi te waxoo baax na. waaw ñi nga xamante def transport tamit ñu xool yi xamante ne noon la ñuy yebee quoi parce que tamit am na yoo xamante ne. dama gis yenn saa ma koy wax fii oto boo gis am na poids boo xamante ne moom la ci tubaab bi def mais tey bu defee exemple tey bu defee trois tonnes la war a yeb ñun dañuy dem boo def cinq tonnes loolu tamit beneen affaire la loolu dama koy gis tamit loolu nañ ci bàyyi xel bu baax quoi. lan nga dund ci sa àdduna loo xam ne tey bu ñëwaatee sa mémoire da lay gën a yokk jom wala da lay yóbbu ci yeneen niveau. tey li nga xamante ne moom a gën a marqué mooy man sama gaañu papa. ak bi may ñew fi fekk ko mu febar ma wara dem mu ne ma avant ngay dem nga ñew ma ñaanal la ma ñew mais munul jog fi mu tedd la tedd ma jël sama loxo dugal si ron ci lex bi noonu mu may ñaanal mu ñaanal ma bare ma diw mu ne ma demal mais nag presque dem bi daanaka toog moo ko gënoon ndax dara yàggatul ma dem ba ci yàgg ma ne bi de xam naa am message bu muy sànni quoi ma ñëw def fi trois jours quatre ñu woo ma mu ne pa bi nee na nga ñëw bi ma fekk ko ci lal bi en même temps mu tedd ma ñëw bi mu bi ma ñëwee ba mu jàkkaarloog man rek daf ma joxaat ginnaaw avant bés set ma jël ko yóbbu hôpital ñu nekk hôpital suba si avant midi mu gaañoo ak man foofu ma ànd ak sama yaay yor benn sareet après ci laa mu jawoote waat kër ga ñu fekk si ma foofu ma jël euh, corbia ñu yóbbul ma ko Touba dem denc ko ma toog dëkk ba une semaine saraxal ko ñib si waat fi loolu gën ma yokk jom quoi boo am loo xamante ne man du ci nekk waaw parce que dafa am ñoo xamante ne sama ginnaaw la nekk te ci man la ñuy xool kon am na loo xamante ne def ma war quoi waaw. mu ngi noonu dañuy dugg ci deuxième partie bi ambiance deuxième partie bi mooy euh, euh, tey dama jël décision ñu fi def temps booy sa première gel noo ko doxaanee da ngaa ñëw sànni ko almet wala nga ji nga ko message ba nga jël gerte ne ko ñaar boko xaré benn bi yow benn bi man noko ko jëlé no non loolu loolu ya ngi may fàttaliku lu yag nak copain. sama première gel mom, di koy doga géré ni kimo dama jappone ki moy nek sama soxna. Hmm. wa jël xama jamano yoy comme ay cap lañ doon sol jël sama cap. wengal, tak ko bo mu teng nice. bu ko fen rek. moom laay jox kàpp bi ceene bu ko defee moom fu mu nekk ci biir gaay yi moom ci gel yi dañu xam ne kii sama gel la waaw ba jamono bi ma ko mujjee doxee noonu nag affaire bi mujj sotti ma ne ko pare naa ci jigéen comme aw ma do ma kooku nekku sama soxna man pare naa ci affaire gel pare naa. ayca kontaan nañu. jaajëf copain. merci beaucoup. ok damay xol damay xool beneen waa ji nga xam ne fekk naa ko ziar naa. <laughs> non man nag damaa non nettali ma sa première gan rek. damaa dégg loolof nag eh, damaa dégg loolof. déggoo la waaye bu lekk ñëw da nga ko dégg. non dégg kañ lekk dégg nga <laughs> kañ lekk. eh Pape kontaan nañu. Oh, jërëjëf. salaam ci loo nekk. yaa si yam. sant rek. maa lay ziar. ma lay ziar bu yër. Euh, dama bëgg ñu fàttaliku temps booy sa première gan nan nga ko amee. man sëriñ sànni ko almet wala da nga ko bind lettre sëriñ la sëriñ la ah, wala da ah, nga ko xo nga ko ci xaati dem sëf laal booy bi laal booy moom lettre la ko amee lettre lettre la ko waaw lettre la ko jox waaw lu mu defoon lu man man moom damaa woo boy bu ma moom ay fit waaw sàllaaw la nag moom primaire temps booy temps mooy mooy mooy mooy yi booy def rek yi booy def mooy li ñu def ah. yi ñuy def rek gone yi non gone yooyu ca booba bokkul ak léegi booy yi ñuy def ah. léegi moom booy yi dañoo am fit moom waaw ah, ñun moom mais boobu boobu moom doo dàqale doon rek fexe ba wax ko li nga bëgg ba mu am information bi waaw ba mu am information rek xaw ma xool keneen. koy be ñu gis sama baab doxaan laa laaj foo jëm merci. salaamaaleykum Cheikh bi. maa lay ziar. delloo ziar bi. yaa ngi durus. waaw durus moo yaa ngi ci affaire. <laughs> sant alam. naka café gi mu ngi dox. sant suñu tubaab bu baax. Euh, foofu fa jógee kii euh, Mbacke wala wala kii Jolof. Touba Touba. waaw daa am lu may laajte euh, sa première gel noo ko doxaanee. da nga kaa bind lettre am da nga ñëw pes ko tàpp ndaw ci kër gi am da nga yónni sa xarit noo defoon. non non loolu mosuma si jaar. mosoo see jaar. yow ci loo jaar ko. wallaay ci loo jaar. Hmm? ci loo jaar. non mosuma jaar ci ya, yooyu yëfi taalibe rek. ah yow daal man maanaam dem daara ya, ñëw jàng. déedéet même pas ah. ya, sax mais bi ma gisee ki ma bëgg dama ko labal rek xam nga. mu gën a xam kilifa yi def li ci war. doon sama soxna. voilà. kon tey xale yi li ñuy def nii yow loo ko mën tudd. Hmm? xale yi li ñuy def nii. xale yi li ñuy def. ah man wàllu yaa côté boobu ma ci gëstu bari de. waaw man daal sama liggéey bi rek moom waaye liggéey baa ngi dox. ah <laughs> sant yàlla na gën a dox. kontaan naa. li ma gis ngay seetaan <laughs> ah gis naa ko. gis naa ko de waaw baax na ajo topp ma ajo jërë ngeen jëf euh, mbokk tax na de gis nga ni ñu def tarkal doxantu naa laaj na ah tooñante naa seen première gel nu ñu ko amee yaa ma gën a xam ah man nag booy dama leen di nekk première gel nu ma amee ah ziyaare ñi la woon man daal sama benn gars yi ne ma dem sàcc biñ biñ fer ma sàcc fer dem yóbbu Wasaare Fer yóbbul xale bi xale bi jaaree ci ne Fer yi la bëgg man bëgguma moom Fer yi la bëgg Fer yi ma ko jox moo ko yitteel man dara ñor ko ci man yow loolu kaala. ayca seen émission waa mbedd bi ni lay demee saa su nekk damay xool benn actualité daal di ci waxtaan ak yéen lii nag dama koy tollanti demee ah dama koy tollanti demee tey dama ñëwoon daal di leen defal tuus bu njëkk jox ku nekk li mu moom ah ngeen jox ma li ma moom yaa ma gën a xam ànd ceeg comme dab ki ma ciy àndal xam ngeen ko kenn dootu ko laajte jox leen rendez-vous demain incha allah. képp koo xamee rek yaa ngi commenté maa lañ ñaan ngeen partage émission yi xam ñëpp ci lañ bokk lu ci waay am rek moo ko moom seen émission waa mbedd mi aat bi ci mbedd mi jëf ji ci mbedd mi lépp ci mbedd mi lay xewee ngeen ànd ceeg DJ la doom Boss international Saloum Saloum ànd ceeg Ramadan ki nga xam ne moom bu teggoog bu teg woo moom wéer koor bu teggee koo ci koom rek mooy ànd na jeex na émission bi jeex na